ayca jërë ngeen jëf mbokk yi jëmm ji ngeen gis nag mbokk yi kenn dootu ko présenté bu ñu ko waxee kii mooy Serigne Cissé borom tawféex ngeen gis ko noonu ci yenn yi nga xam ne moom mooy gàllaaj yi nga xam ne ci lay liggéey jaamu yàlla yi. mbokk yi tey nee naa leen fii lay ubbe ak yéen fii laay waxtaanee ak yéen bu leen gisee néeg bi ni mu doyee waar bari yenn ci bagage yoo xam te ni yaakaar naa ne ci la nekk ci la ñuy waxtaanee tey lu baree baree baree bari mbokk yi. dama leen di bàyyi ak moom mu leeral leen li nga xam ne moom moo di garab yi ñu fi fekk tey tey dañ koy indi mu présenté ñu garab yi. ayca jërë ngeen jëf mbokk yi Serigne Cissé ngi noonu a la ñuy waxtaan ba ay ci wàllu kaaraange. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi illa billahi al aliyyil mbokki jullitam mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ku nekk sa tur sa sant di jiite ci nuyoo Sëriñ Muntaxa Basiru saa borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te mbër di ñaan tarix yëpp di jaar xaalis laay ñese ñëpp saa borom bàyyi leen fi yàgg fi lool te wér di ñaana waa diaspora suñ borom defal leen tawfeex ak taysiir ba ñibbi seenum réew di ñaana ñëpp waaw makkan danga ñoo fekk ci nga xam ne mooy suñu bërëbu liggéeykaay nga xam ne tey jii dangaa ñëw ci néeg bi ñu waral leeral askan wi lu bëree bëri ndax nit ki ci li ngay liggéey war nga sax dema ba dem ab diir nga wan nit ki nii ci lii laay liggéey ak léegi lii tey nag nga laaj ma ci ponk boo xam ni wàllum kaaraange damay wax ni kaaraange dafa nekk lu am solo ci doomu aadama mooy li njëkk ci doomu aadama wërsëg neex na kartan neex na leneen ak leneen waaye nag kaaraange mooy lépp solo ndax yaakaar naa kaaraange boo ko amut yaakaar naa lu nit jee ko xëppaloo ko yenn yi ngay gis sax tey jii nii ay coow ngay gis tey jii nii nga xam da ngay ànd ak mbooloo ay coow am fa ñu ñëw jiiñ la ko yëpp ci ñàkk kaaraange la lu daanaka loo dugg lu nekk rek yow yaa koy mujj yëpp ci ñàkk kaaraange la bopp kon mel ni nit ki dafa war a am kaaraange ci boppam wante fii na fekk nga fi kaaraange yoo xam tey jii nii dañ lay wax ñaari kaaraange fii ndax damay bañ mu jël émission bi wante gis nga makkan lu mel ni sangat gii ngay gis nii nii. sangat gi nii nii tey jii nii sangat gi nga gis nii am solo solo am solo gis nga sangat gi boo ko sangoo premier jour bi nga koy sangoo doo sol ay dàll kaaraange lay dox deuxième jour bi dangay sol ay dàll ñàkk a sol ay dàll googu nag mooy li li nga xam ne moom laay leeral doomaat bi ndax des nit dina dox ba ñu ci ab tànkam mu sumi ay dàllam ñu ci ab tànkam mooy boo dee dugg premier jour bi ngay dugg mooy loolu des fois nit tamit dox ak ak i dàllam ñu ci ba ab tànkam mooy deuxième jour bi boo koy sango da ngay sol ay dàll wante sangat gi nekk na sangat goo xam ne du sangat gu baax waaw ci wàllu kaaraangi la moom boo ko sangoo moom bu ma la joxee nga sangoo ko nga dem ci sëriñ boo xam dana mu dan laa liggéey boo ñëwee ma joxaale sa xaalis waaw naa ko Sëñ Tuubaa ni amut ku koy sangoo te li nekk sa yaram deñul ba pare mu defal la fa kaaraange man lenn kese lay bañ mooy ngay tooñ ànd boo tooñul moom sangat gi nii bis boo ko sangoo na la leen mucc nga ci ay noon mucc nga ci tamit ñi nga xam tey jii nii dañuy toog di waxtaane say mbir say mbir di dox te neexu leen ñu ci waxtaane wala ñu teg la bët mucc nga ci ñoom ndax képp koo xam ni tën na laa bàyyi bu soobee yàlla du ko waxati te yaakaar naa boobaa jàmmam day jeexam ay aw ay kese koy topp sangat gi daa am yi nekk ci biir yi nekk ci biir nag duñ ko leeral ndax dañuy bañ kii sangat gi mm-hmm. tojtal sangat gi waat sangat gi daal moo ngi nii képp koo xam ne bëgg nga ci foo mën a nekk ci bitim réew fépp ci àddina rek mën naan la cee jox ci laay sango ci laay sango sama njaboot ak ñëpp kon mu mel ni man li may jëfandikoo ci laay joxe nit ñi moom béralu ba ay naa nangam naa li may jëfandikoo ci laay joxe nit ñi muy bayre bi muy leneen ak la muy leneen wante kaaraange moom képp ku ko bëgg moom dinaa la won kaaraange gi wanaat la geneen goo xam tamit bu am solo la lu mel ni gii nii nga gis lu mel ni gii nga gis moom it gis nga ko moom gis nga wax mm. gii nii nga gis nii makkan noonu muy fuure moom it ni la nekkee kaaraange am kaaraange gu am solo gi gis nga li ci ëpp li ci gën a doy waar muy boo doon jëm ci mbooloo ragal tey jii nii nuyoo fa nit sam noon wala fa nuyu nuyu fa nit koo xam ne tey jii leer na ni kii bëggu la boo doon dem tey jii da ngay jël rek laala la ko say loxo mm. boo demee nga fekk mbooloo ma nga nuyu leen képp koo xam ne da ngay ñëw ca mbooloo ma bëggu la wala mu lay xoole yenn bëti wala muy sam noon day génn mbooloo ma jóge fa ca saa sax bu la leereen da ngay dem tey jii nii ca mbooloo nga xam ne leer na say noon ña fa boo dee dem da nga koy sëlmoo rek daay ko sa kanam bépp sam noon boo xam teg na la fa bët day génn jotaay ba ak foo ko mën a fekk day génn jotaay ba dem moom buy génn sax du ko tey day mel ni da nga koy dérange day mel ni li koy génneloo sax du ko xam kon mu mel ni kaaraange gu am solo moom it boo ko sangoo lépp loo xam ne nekk na ci yow bu soobee yàlla day deñ te boobaa nit liggéey la jàppale day jafe te kaaraange gii tamit nekk ci soobu ñuul bi nga xam ne moom laa leen njëkk wax giñ naa ko ci yàlla ne bu la neexee boo ko sangoo tànki neen fu la neex doxal ay tànki neen ku cibbu sa tànk am problème ndax premier jour ba nga koy sangoo tànki neen nga def deuxième jour bi nga nga sol ay daal wante fu la neex toxe fa tànk kese tànk kese moom ku tibb sa tànk du ko waxati waaw loolu moom nekk na kaaraange yu am solo nga xam tey ji ni fii mooy bërëb bi nga xam tey jii boo ñëwee di sangu gee topp ca gee topp ca nga mujje gi nga xam ne tey ji yii yëpp yii nga gis yëpp ay ubbikaay la yii yëpp ay ubbikaay la xam nga sangat kaaraange moo njëkk nga sangoo kaaraange ba pare li nekk sa yaram dañ ba pare mu aar la nga door cee teg ubbikaay wante ñu bari na xamuñu ko dañuy jël ubbikaay sangoo ko par door cee teg kaaraange boobaa yaa ngi tëjaat sa bopp ndax dangaa war a dindi li nekk sa yaram pare protéger sa yaram ba pare doora laal ubbikaay nga xam ne ubbikaay boobaa wërsëg bi day mën a ñëw wante boo njëkkee ubbikaay gi teg ci kaaraange boobaa yaa ngi gën a ma sa bopp kon mu mel ni boo ñëwee da sangoo kaaraange yi yi mbiru cat yi mbiru rab yi mbiru sayt seytaane yooyu ngay njëkk ba pare ubbikaay ak bayre yi ñoom ngay mujje hmm, kon mu mel yu am solo la yi nga gis yëpp yëpp <laughs> ay ubbikaay yu am solo yoo xam ne tey jii nii moom it nekk na xam-xam yoo xam ne yaakaar naa képp koo gis rek di xam ne lii xam-xam la daal da xam ne sëñ sëñ bi daal caaxaanu noonu ñaan ñaan ñaan daal yooyu daal xam bëgg noonu ñu leere ko askan bi pour askan bi àcc waaw bii nii boo ko dee sangoo moom dafa nekk loo xam ne ka euh, ubbikaay la ubbikaay gi tamit dafa doon lu am solo loo xam ne gënn gi nga koy teg boole kaak moom sangoo ko ci gënn gi da nii mu tege nii noonu nga koy tege yóbbu ko si wana wi sangoo moom moom boo ko dee sangoo nii même bu ndox mi demee bay waajee jeex nii sax doo ko yëkkati ci kaw gënn gi ngoy waaw ci gën gi ngoy sangoo ba mu jeex tàkk moom it ni la amee solo lool ci xeeti ubbikaay nee naa la nga gis yëpp ay ubbikaay laa ci bayar yee yëpp kaaraange la ay mbiri rab ak mbiri ak mbiru seytaane ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf yaakaar naa ne li ngeen fi gis mooy ci wàllu leeral ci wàllu saggat yi nga xam ne moom la Serigne Cissé borom tawféex di joxe leen nag mbokk yi kaaraange daa bokk ci nit ndax nit ki da ngay aar sa bopp ñàkk sa bopp ndax jamono doy war yaakaar naa ne fi àdduna tollu tey bari na ci nit ñu bare bare bare bari bi ñuy départ cat ak loraange moom moo leen tax ba mënatuñoo yegg fenn kaaraange dafa bokk ci doomu adama moo tax gis ngeen ni ko xam ne mooy sëriñ Cissé waxe ci wàllu garab yi nga xam ne moom la ñu woon waaye nag du yooyu rek laa fekk ndax fekk naa fi lu ne ndax fii nee naa leen lu ne la sëriñ Cissé yaakaar naa ne wax nga ci kaaraange pare mais fekkaat naa ci yeneen bërëb yeneen garab. waaw fii moom bërëbu ñaanukaay bi la nga xam ne tey jii nii dañ leeral ni Eh, nit ki wax naa la sànq ni la boo dee liggéey jar na ñi ngay liggéeyal dafaa ñuy xam sëriñ bi yan qualité la yor wala ci lan lay dox loolu dafa am solo bu baax a baax moo war a tey jii nii nga ñëw si néeg bi ñëwoon la jëmi ñaani kaaraange yëpp a ngi fi mbir loo xam ne daal day jëriñ doomu ma daal moo ngi fi ndax ñaanay suñu métier amuñu lu dul ñaan ci ci leen te day ci leen tere moo tax lu nu ñaan may dañ koy jël mm. lu nu ñaan tere tamit ñu bàyyi ko mm. euh, li may gën a xuus mooy ci wàllu présenté moo waxee fekk naa fi ay bërëb yu doy waar a doy waar mais fi may njëkkee mooy damay ñëw ci sunguf si nga xam ne dama cee gisaale xaw ma nag lu ma ci gis mbokk yi sunguf saa ngi nii sunguf su doy waar la fii la ñuy njëkkee sëñ bi li mooy lan lii daa mel li bari na lu mu làmbool waa lii nii nga gis nii dafa nekk sunguf soo xam ne ci mbiru saytaane ci lay dox mm-hmm. ak ci koo xam ne tey tamit arab euh, dakaa jàpp lii nga gis nii ci kaw nii neefare mbaam la neefare mbaam xam nga mbaam moom daa bari njariñ ndax mbaam sax fi ne boo fekkee fu mu tëdd ni xalangu fe ba bàyyi nga tibb ko nii rek sangoo ko sax baax na ci yaram yaram wuy diis wala yaram wuy wala yaram waa fu mbaam bërëngu nit xalangu nii boobaa nag bul bàyyi ba mu xalangu ba pare da ngay bàyyi ba mu xalangu ba pare bala moo jóg yow nga yëkkati ko nga dàq ko mu jóg nga daal di gaaw ci ci suuf sa sangoo ko baax na ci yaram yu métti ak yaram boo xam day diis yaram buy tàng wala yaram boo xam ne ay raba eh, cet wala ay rab wala seytaane baax na ci nga xam ne lii neefaree mbaam la lii nag sunguf boo xam ne du dañ koy eh, booleek ay xeeti pofto nag ay yu nekk yoo xam ne tey jii nii lu bari la làmbool nga xam ne tey jii ci xeeru seytaane gis nga kii bis boo bu la seytaane jàppee muy nitu guddi ñu naan tey olof danaa ko dëmm gis nga bu la jàppee yow tey jii nii bu la jàppee mu leer na say mbokk la ñoo la jàpp boobaa dañuy gas benn pax bu yam jël kilo eh, loxob ceeb def ci biir pax mi daa di jël cuuraay li def ci biir pax mi taal def xari taal nga suuroo ko bu la say mbokk jàppee danaan wax bu dee say mbokk la jàpp bu dee ki nga xam ne ay mbokkam jàpp ko seytaanee ko jàpp nii rek daa demoon fenn mu dugg ko wala mu dem ci xew mu dugg ko nga xam ne bu timis jotee rek yaram bi day commencé diis di taayal bopp bi metti nga bu guddee muy tiit nga xam ne du am jàmm ba bët set bu noddee allah akbar fajar rek mu mel ni dara dalu ko nga xam ne ci lay nelewe nga xam bu yeewoo day dox ay activité bu timis jotaatee rek mu tëralaat ko nga xam guddi gi day fanaane feeb ba bët boo ñu seet see bu la joxe cuuraay lii boo ko suuree bu dee saytaane la day denc saase ki nga xam daa dem ci xew nag saytaan topp ko fa dugg ba nga xam ne mënta tiseel yi bopp bi day métti yëpp kii bu la ko joxee ci saase da ngay tiseel yi ndax nekk na cuuraay boo xam ne cuuraay mën naa la wax jooni jooni la ndax lépp loo xam ne seytaane dalaa sonal na la seytaane jàpp ban tëral la bii ba amatoo yaakaar buñ la ko suuree defal la fi nëpp la ci nga suuroo ko bala nga boo fi dee jóge ci jàmm ak salaam des fois seytaane day jàpp nit ba jàpp ci buli gi put gi nga xam ne tey jii nii doo mën a lekk loo lekk day tekk wala mu lay def ay enzyme wala loo naan lu nekk day tag nga xam ne du la sawarloo ngay lekk du la sawarloo ngay naan wala loo naan mu tag ci dënn bi wala loo lekk mu tag ci dënn bi wala loo lekk pour mu reesal ko day jafe nga xam ne tey jii nii mën nga di lekk mu jàppale sax mën nga di lekk waaye pour dem duus ay të nga xam na waaw xam nga bala ngay dem duus day yàgg nga xam ne tey mën ngaa toog ay ñaari fan doo dem duus xam ne loolu baaxul ndax li nekk ci nit ki daa war a dañ wante képp koo xam seytaane jàpp na la bu buñ la lee sunkuf bii suur la ko bu soobee yàlla seytaane ak lum dëgër bopp dana deñ moom bu dee sa mbokk la moom day wax. Mm. mooy li ci gëpp daa mel ñi feebar timis di leen dal ñoo xam te ni bu timis jotee rek ñu tàqalikoo ak seen sago dootuñu am jàmm. loolu xeetu saytaane la fu noddee tàkkusaan ba julli tàkkusaan pare ngay commencé gis sa yaram bi daa commencé tayel mm. sa yaram bi tàng sa yaram bi diis mm. sa bopp bi mel ni commencé metti yooyu yëpp xeet saytaane la bu guddi jotee nit ñi nelaw yow doo nelaw feebar guddi baaxul koo mos muy dégg naa bu guddee damay feebar feebar bu baaxut mm-hmm. feebar boobu ñaari saytaane moo koy def ndax lu baax moom du dox guddi mm-hmm. ndax seytaane guddi ci lay duggee nit mm-hmm. am na ñu baree baree bare fi saa bu ñu tëddee ba guddi ci lay leen di saytaane seet si léegi nag bu ñu yeewoo nag ci la ci leen di saytaane dugg ñu yeewwaaleeg moom bu tàkkusaane mu commencé manifesté wu di leen sonal bu guddee nag mu gën leen a attaqué nga xam ne saytaane day dem ba dox ba dugg ci doomu bi nga xam ni des day jàpp xol bi muy métti mu mel ne koo koy def sanru estomac te fekk na du estomac des fois saytaan day def loolu day dugg foofu di lekk yaram bi mën na dee def genn saa yi tamit di jàpp sa yaram mi jàpp sa tànki mu mel ne sa tànki day crampe wala muy nagam wala muy ruux yooyu saytaan da koy def wante yii moom képp koo xam ni saytaane nekk na ci yow incha allah boo ñëwoo ban xam ne lii saytaane la buñ la joxe cuuraay lii moom dana deñ ak fu mu la mën a duggee ak ñaata weer ñaata at lu mu la mën a duggee dana la bàyyi moom nga xam ne saytaane moo gën a bon liggéey ndax liggéey man naa laa wax ne da ngay def mu toj waaye saytaane dafa nekk loo xam da ngay nëbb te saytaane saa bu la jàppee boo dee dem hôpital moom hôpital la la yebal la gën a sawar ndax ñaare saytaane am na nu lay jàppee noo xam ne boo demee hôpital buñ lay piquer mën nga cee faatuwaale hmm? mooy waral yenn feebar yi sampale ay biteel ci la gaañu yooyu tamit moom hôpital la bëgg lim gën a ragal nag mooy sëriñ saa boo nee suba damay dem seede yàlla saa boo nee suba damay dem ci sëriñ rek da ngay gis seytaan day génnaat ci saw yaram may la jàmm nga xam ne day mel ni dara mus laa dal wante booba nag bu la attaqué waatee boo amul ndimbalu yàlla dëgg mën na laa tëral loolu mu rey la wante saa boo demee ci sëriñ nag moom day dem ba deñ jeex tàkk set wicc wante cuuraay bi nekk na lu am solo loo xam même yow mi nga xam rab sax dala sonal nii ngay gént ak wala ngay daanoo yëpp boo ko suura bu soobee yàlla dana deñ mm-hmm. wante daal képp koo xam ne daal am nga jafe-jafe yi ñaar yi ma la wax boo ñu ci wooyee bu soobee yàlla fu ne mën nañ la faa yóbbante waan bu la ko yóbbantee bu soobee yàlla incha allah boo ko boo ko suuroo mu deñ lii amul lenn yaram yi mu diis saytaane jàpp ko mu diis gann muy tànk nga bañ nelaw suuroo ko rek tëdd sëñ bi ki may message naan ma neel sëñ taab des fois moom de génne ay taab fu ruqe foo xam ni yaakaar naa ne nit sax yaakaar ne du fa am taab waa ca taab nag dafa bëri ñaari ñaari façon dafa am xeet taab yoo xam ne danaa waay saan la mm-hmm. ñaareel nawet ci lay amee ak bu dee dugg ci nawet yooyu tamit mbiru seytaane la waaye saan am na taab yoo xam ne mbiru cat la waaw yenn ngay yenn taab yi nga gis nag ñuy dugg fa soba yëpp ay mbiri la yooyu moom du ay waaye saan du mbiru seytaane yooyu ay mbiri cat la mooy cat yoo xam te ji wax yoo xam daa war a génn ci wala gàllankooram daa war a génn ci génn ci saw yaram la bu dee waaye saan nag day nekk taab boo xam ne mën naa nekk foo xam ne day feeñ wante feeñ gi muy feeñ nag moom moom it guddi ba guddi lay metti waaw guddi ba guddi lay métti bu dee taab yi nga gis nii nga xam ne taabi cet yi moom faalewut guddi gu bëccëg day métti rek waaye ne métti bi métti ak metti bi bokkuñu bu dee bee nag de bu guddee boo booy tëddee day mel ni loo mos a dox lu nekk tey guddi la lay xaar ne tey nelaw ngay gis ñii dañuy téye seen loxo yi ñii bu mënaan dagg seen loxo sax dañ koy dagg yooyu nag baaxul nga xam ne waaye saan mag ñi dañ la daan traîner la boo ko amee bul di lekk yàpp bu di lekk jën bul di naanum soow ndax yooyu yëpp du baax ci moom boo ko defee rek daanaka sax sànku mën na laa jural leneen ak leneen wante lépp ci kaw xam-xam ci kaw seet la rek ndax nit du lagar laga ab góomam walla ak taabam rek ni la seytaane ma jàpp wala waay saan nga gëm ko dem defal ko ba xool ba xam lii rab eh, seytaane la wala lii beneen pexe la wala lii tamit feebar la rek nga mën ko cee dimbale te yàlla tax. sëñ bi kooku ñoo bokk dëkk ñoom ñaar ñuy ànd mais dañ leen doon wax li la jiiñ ba guddi naan ay seytaane lañ ñu jox ko am soow soow mi def tooke ci biir bi di ko mettiti di metti neen timis lay bañ waa nit de jiiñ ko nitu guddi loolu yonent bi alayhi salaatu salaam da doon tere mais sax baaxul ndax képp koo xam ne waxal nga ko nit a nekku ko rek daanaka di ci am boo xam ne xamu foo koy lay ak borom wante am nan kaaraange yoo xam ne sax bu ma la ko liggéey liggéeyee xeet yoo xam ne bu ma la ko liggéey nga takk ko nitu guddi saa boo jàkkaarloog moom wala nga toog moom di nga xam ne kii nitu guddi la ndax sest yi boobaa dinaa la wax ay sest yoo xam moom la nitu guddi di def moom it nitu am na kii yoo xam ne boo ko takk wala nga jëfandikoo ko boo toog moom ci jotaay moom it day jóg dem même bu ma ko defal ni laal ko nii nitu guddi ñëw xam nga ñun sëriñ si la nitu guddi gën a sonal ndax ñun la ñuy seet si façon bu ne dañ koy defee di ko ñëw fii. mos nga ci jàng jànkonteel gis ne kii xam ne nitu guddi la. mos naa kaa gis benn yoon wante du ñaaraat ndax ñun moom daanaka bàyyiwul suñu bopp wante am na yoo xam bu ma ko defeen fii nitu guddi dugg si ci néeg bi nii du fi yàgg soxlaam du ko wax. Mm. soxlaam du ko wax de day mujj génnaat. bu ko deful léegi mu yuuxu fi wala mu wala mu wala mu wax fi léegi. Mm. nga xam ne tey jii nii loolu mën naa laa wax ni la loolu li koy nit di xamee mooy nga am gàllaaj gi gis nga gàllaaj comme ni ngay amee gàllaajug jaan nga xam ne téere bi boo ko takkee jaan jaan jaan joo dem gis ko day sab wala tey ji ni bërëb boo boo duggoon ci kër gi mu am jaan jaar yi dañuy sab wala ñuy génn di daw noon ngay takkee gàllaaj goo xam ne niti guddi fu mu nekk ak foo nekk ak moom day dangay xam ne kii niti guddi la ndax du la mën a supporter day génn bu génnul day am ay jafe-jafe waaw soit day feeñ wala tey jii nii yàlla weer ko ante niti guddi ay kii damaa joxam soo wala nangam yooyu neexu taxam moom ndax des li ngay ragal ci ngay amee ñëw ñaaw njort li ngay ragal ci ngay ñaawee njort hmm. comme ni ñu leen koy waxee tey li nga xam ne mooy présenté ci wàllu garab sëñ bi lii moom doy na waar lii mooy lan. <laughs> ñi nga xam ne tey tamit suñu borom dafa def seenu yaram ñaareel day faral di diis mm-hmm. ñuy tàyyeel ñii wàllu liggéey di nekk ci seenu yaram mm-hmm. ñii wàllu cat di nekk seen yaram ñii wàllu àndandoorab di nekk ci seenu yaram mm-hmm. ñii bët ak làmmañ sonal leen ba dun am jàmm luñ dugg mu yàqu luñ yaakaar mu tas seen seen garab a ngi nii garab gii nga ko gis na xob yi nga gis garab gu nekk ci ay armeel la xob yi ci ay armeel la jóge waaw ñi jóge ci ay armeel la nga xam tam ni garab gu bees la gii nii makkan niñ koy jëfandikoo yomb na lool dangay baxal am ndox ba mu baax lu la mat a sank nga jël ci xob yi def ci biir ndox mi jël loxob xorom defaa la ci bàyyi ba xobi yàbbi moom li ci gën a doy waar guddi ba guddi nga koy sangoo ndax mën naa laa wax ni la sëriñ si dëgg guddi lan lay liggéeyal seytaane dëgg guddi la lay attaqué feebar yu bon yi guddi lan lay attaqué ah, reer ba suur jikki-jikki pala lycée jikki-jikki sa bopp di métti ñu yóbbu hôpital mu faatu nga yeewu yaram bi bañ yëpp moo koy waram wante boo ci jëlee defee loxob xorom nga bàyyi ko ba mu yàppi nga sangoo ko nga sa boo ko sangoo danga nga ni am na lu génn sa yor sa yaram day of toll te li ci gën a yéeme muy bus bu yii may wax bu nekk ci yow boo ko sangoo bu tëddee ba guddi di nga gént gént xaw a doy waar gént daal nga nga lii dañ saw yaram nga xam ni boo ko xasee sangoo ba pare moom lépp loo xam ne nekk na ci ci yii ma lim bu soobee yàlla dana tàggoo yow muy seytaane muy rab muy làmmañ muy bët muy liggéey muy yaram muy tàng ngay taayee rek yëpp ni nga ko gisee ni mel lu ñàkk fayda noonu la amee solo parfois ngay romb ak garab ci mbedd mi yow mi koy romb doo xam njariñ wante sëriñ bi koy romb dina xam njariñ te garab yi saa boo ko romb da nga koy ñàkkal fayda te fekk na sa njariñ moo ngi ci yow mi koy romb. dégg garab du ñëw rek witt daa am looy jënd garab nekk la ngay jënd. daa garab yoo xam ne nii. ci ceeb nga leen di jënde am yoo xam ne diwtiir nga leen di jënd am yoo xam ne xaalis nga leen di jënd am yoo xam ne Euh, kii nga leen di jënd dugub nga leen di jëndee. Mm. am garab yoo xam ne sax dangay ngay summeeku am yu dëbbal dëfal yooyu def mën kaa jënd. Mm. am garab yoo xam ne tey jii nii da ngay nat sa yi mm, daal di gas am pax daal di sotti ca dugub wala nanga nanga jënd ko yooyu nan wante garab moom kenn du ko jënd am yoo xam ne tey jii nii bu dee garab goo xam ne garab bu garab gu kii la da naan naam lay wala nga ne naam ñes bu dee garab gu weex la gu amee dégg da nga ne naam ñes bu dee garab goo xam ne nag amuti dégg amut dara da naan naam lay nga xam ne kon lay sant wu am solo la ñes tamit sant wu am solo la nga xam bu dee da ngaa dem ci garab naan naam ñes daal di commencé jëfandiku ca garab ga wante du garab yëpp nag ndax am na garab yoo xam day jame yoo xam ne du la laaj aw sant yooyu ngay wax da lay laaj tey jii nii dugub wala nanga wala nanga ma nanga tegtal boobu nga def ko am garab yoo xam da lay laaj ay xeeti yére ak yëpp da koy laaj waaw yére ak yëpp da koy laaj yére yi nag du question da ngay jënd ab yére yóbbu fa da am xeetu yére boo xam moom ngay sol boo ko dee wuti ji ak yeneen bagage yoo xam moom nga koy booleel ak yooyu noonu yooyu moom nga koy di wuteeg yooyu kon ma ne euh, loolu lépp rekk ci am njàng la bokk am njàng la bokk dafa nit sëriñ dana digal nit ni ko boo demee nga wut xob nangam ak nangam te fekk na néeg ba ba nga fay dugg dafa am kànnaar joxo ko caabi léegi nag yow boobaa li nga ko jox daanaka du am njëriñ te dama lay wax lu am solo xale nit ñi nan bàyyi galaaj euh, yi ñuy jël ci TikTok bi daanaka boo xoolee ku la dàq jël ay gala ci tëkk wala ay secret moo la gën a umu moo la gën a nekk ci jafe-jafe ndax xaatim yi ñuy joxe ci tiktok yi ñaareel xaatim yi damm lay nekk wala yow mi koy utiliser yow mi koy jëfandikoo boo ko dee bind ci lay dammoo wala xaatim yi day manqué parfois ma xool xaatim boo xam ne day manqué te nit day taxaw ci internet bi di ko joxe kon loolu baaxul. ma gis ñuy jaay ubbike ay parfum yoo xam te ni day yokk wërsëg ci tiktok bi. waa parfon yooyu mën naa nekk sax. par fond ubbikaay moom mën naa nekk ndax boo ci liggéeyee li ñu ci war a liggéey dëgg mën naa nekk. waaw mën naa nekk yooyu yëpp mën naa nekk gis nga comme lii nii lii nga gis nii lii nga gis ne xam nga parfum la. lii parfum bi uh, mu ngi nii. Uh, eau de rose la. gis nga ko lii xam ne parfum la lii xam nga ubbikaay la waan sama yëfi bopp la. moom it nii ngay def rek. daa def ni raayu xam nga lii moom parfum la waan du parfum bu kese daa am lu mu àndal waaw daa am lu mu àndal xam nga daa am na day sedd guy xam nga mi ngi ni parfum la loolu moom mën naa nekk wante du parfum képp koo xam ne dalaa joxe parfum kese dalay nax rek wante parfum moom daa am leneen loo xam ne da ciy nekk kon parfum day am yoo xam ne ubbikaay lay nekk yooyu moom mën naa nekk ba ci parfum naar yi yu mel ne oud uddul amirul hut wala yee saxirul ut wala yooyu yëpp ay parfum yoo xam ne ay ubbikaay la nekk te naari kese ñoo koy defar muy ay ay yooyu yëpp yooyu yëpp la ak mhm. bu weex. melokaan bu weex la jiitale li nga xam ne moom moo di sunguf si teg ko ci leget gi. waa bii moom kaaraange la wante xam nga tax mu doy waar muy boo gisee ñu teg ci melekaan muy ñaareel nit saa bu dee faatu wala saa bu dee eh, juddu rek daanaka lu weex lañ koy tegal moo tax ba dañ kaa lay lii nga xam ne si meede kaaraange ci lay bokk sunguf si nag moom it si garab goo xam ci ay armée lay lay lay jóge moom it garab gi muy jóge mooy garab goo xam ne tey jii nii dangaa fekk bërëbu euh, foo xam dañ faa ci néew ab reen jaar ci diggante boobu noonu nga xam ne ci foofu lañ koy jëlee mën a xam tamit ban bis lañ koy jële ak wana waxtu lañ ko fi jëlee kon paree nag bàyyi ko ba mu ñu dëbb ko def ko sungu waa nekk na kaaraange boo xam ne képp koo xam ne suñu boroom def na mu liggéey la yaakaar naa fa nga ko jëlan fa lay mujjee mooy suuli ko waaw mooy suuli ko moo tax ñu lay ko melekaan bii nii nga xam ne lii mhm. moo lay war ne sunguf bi baaxul ndax yeneen sunguf yi nga fi gis yëpp dañ leen a teg ci seen seen seen leget waane bi dan ko kaa laytaaye kon nga xam ni sunguf bi kon fa mu jóge mhm. ba léegi noonu lañ ko ko defalaate mhm. nga xam ne dafa ronu néew bi reen bi dafa ronu néew bi kon ronu néew bi Euh, laytaay moo nekkan ci kaw wànne bii moo nekk ci kaw laytaayam kon nga xam ne tey jii nii kaaraange gu am solo la moom moom boo ko dee sangoo jëru ngay tiit dara ci àddina man moom nee naa la bu ma la joxee kaaraange tooñ rek laay bañ wante boo tooñul moom képp ku la liggéey toogal di ko xool 24 heures nga toog di ko xool may dégg yenn sëriñ yi naan garabu kaaraange dafay daf daf lay tëj day tëj sa wërsëg non ñiy wax loolu danoo xamul rek wante kaaraange lu tax ma ne la ñiy wax loolu danoo xamul mooy yow mi ñaanal nit ki yaay fexee xam code secret nit ki xam tabixa nit ki xam rawaxaanu nit ki ba boo ko joxee kaaraange du ko tëj mm. du ko tëj muy man bu ma la joxan kaaraange tey jii xam naa sa rawaxaan ban sarax lay mën a laaj pour tëj ji mu mën a ubbi say mbir mm. te des fois tamit nit sëriñ dana tëj euh, ki ki muy ñaanal te du ko xam mm. ndax da koy jox juróomi bideel ñetti nekk kaaraange benn ñaari nekk ubbi bu demee nag day jaxase kaaraangeeg ubbikaay kon mënoo gis résultat mooy commencement bi li ma doon wax li njëkk mooy da nga koy sangaloo kaaraange yi bu dee bu rab da cee nekk nga sangaloo ko bi nga xam ne mooy dindi liggéey yëpp nga koy njëkk a sangaloo teg ci bu rab bi teg ci bu seytaane bi nga xam ne kooku yaram bi set na nga door a jël nag tegloo ko ci ubbikaay ak bayre yi bu ko defee yaram bi mën a oyof moo mën a gis résultat yaram bi mën a neex mm-hmm. wante boo ñëwee ni ko sangool ubbikaay yi ba pare door sang kaaraange kooku yaram day gën a tëje mm-hmm. néeg bi day gën a lëndam nit ki gën a ami jafe-jafe wante saa jafareem jafe-jafeem mm-hmm. da nga ko ci gën a yokkali problème wala boog étape ba mu nekkan ko weesu fa lay nekkat ba léegi wante li njëkk mooy raxas yaram bi mooy kaaraange yi nga ko jox ni ko sangoo ko nii ak nii ba pare nga door kaa jox ubbikaay yi mu mujjee ko ne ko sangoo ko nangam nàngam nangam te ubbikaay nag maytul nit ki di ko sangoo ñaara di wiccaxu waaw loolu loolu baaxul euh, euh, am na gu nekk fii goo xam ne ni la amee solo lool génn ubbikaay gis nga makkan goo ko doon sangoo nii boo ko sangoo nii ba pare ubbikaay goo sangoo nii ba pare war a génn sa loxo yi tooy tuuti nga jël tooyati loxo yooyu rek raay ko sa mbum mi mbum moom moom suur boobu doo ci am gàcce moom Hmm? barki seexul xaddim boo ko solo nii nii nii sangu ci saafara si ba pare hmm. sa loxoy tooy tooy boobu mu tooy nga gaaw sol mbubb mi rek raaya ko ci raaya ko ci yére bi nii hmm. la ngay lijjanti doo ci am gàcc moo xam ay kayit moo xam ay jafe jëm moo xam tribunal nga jëm moo xam làmb nga jëm moo xam leneen nga jëm ñépp ko mën a def mbër làmb mi sax bu sangoo ba pare mën na kaa def laalale ko nga xam ne boobaa li tooj sa loxo yi rek ngay jël raaya ko sa mbubb mi nga raaya ko ci nii wante mbubb moomu jour ba nga ko solee raaya ko ci nii jour boobu doo ci am gàcce doo ci teg gàcce mbubb moom doo ci teg gàcce des fois di nga am mbubb moo xam da nga koy sol ni mbubb mi de ci leen ma jàppoon suur nang wala ci leen ma dóoroon suur nangam mm. yow doo ci am gàcce boobu wala mbuum mi ma ban ma daanee ban may daan lii laa soloon wala nang keroog ba may dem làmb lii laa soloon wala keroog ba may dem tribunal lii laa soloon wala keroog ba may dem di def permis conduire ñu may rejeté lii laa soloon yooyu moom du ci am mm. waan saa boo ko raayee moom doo ci am gàcce mm. loo dem wuti ji suñ boroom dana ci defal ndam gandiwaat ndam incha allah mm-hmm. lii moom yaakaar naa ne ay reen la lii moom xam naa ne ku waay gàtt gàtt dégg xam ne lii ay reen la. waaye yii moom dafa nekk reen yoo xam tamit moom dafa am solo. Mhm. yii sax makkaan yoo xam ne dañ kaa utilise woon ba pare. Mhm. tegan ko nii rek. Mhm. moom moom moom la. waa seede bi nag sangatu wërsëg la moom sangatu wërsëg moom wax naa la ko. waa ci ubbikaay lay dox nga xam ne tey jii nii bala ngay sangu dafa damm sax wante bala ngay sangu da ngay xool sa bopp ba pare daal di dugal ko ci biir saafa door a sangu lii nag mooy sangat goo xam tey ji boo ko sangoo boo ko sangoo lépp lu lu ñu def ci àddina daan la ci boole lépp loo xam ne dañ koy def ci àddina dana la ci boole kon mu mel mu mel ne lu am solo sangatu ubbikaay gu am solo waa ay reen la ak yeneen ak waaw garab guy law la wante daa ànd ak mbindum alxuraanul karim nga xam ne tey ji nii bala ngay sangu ba bala ngay sangu rek da seetu seetu ba gis sa bopp nii ba pare dugalaat ko ci biir saafara si daal di sangu wante lépp lu ni nit di boole dana la ci boole ci lu baax ci lu baax lu ni séddale dana la ci boole ci lu baax moo xam sa wàllu liggéey la moo sa wàllu entreprise la moo xam ci wàllum ñaan moo xam ci leneen leen yoon lépp luy séddale moom sa sarax bi dana la ci lawal sangar gi dana la ci lawal ba agsi la ci moom waaye lii doy na waar biteel bii moom xam yii moom dafa nekk sangat goo xam ne moom dafa nekk lu am solo boo xam dañ kaa liggéeyal ni sax dañ dañ cee tombé ànd ndoxu sam-sam lay àndal kii kenn du ko sangoo danga koy raayee rek wante da nga koy raayee rek wante moom dafa non day dox ci kaaraange sax ah, day dox ci kaaraange kaaraange kese lay dox kaaraange du rek gis nga mën na laa jox kaaraange bu la neexee nga bañ kaa sangoo joxee nga koy saw yaram rek la war a laal di waaye am na yoo xam ne nag day jar nga laal sa sa digg tànk bi raxas ko wala nangam nangam yooyu noonu yooyu yëpp daa am solo daal. mbokk moom jaaxal nekk ci leget moom mu nekk ci njaq lii. lii nga gis nag moog sunguf bee dañoo xaw a nuroo ànd boo xoolee xonq yi bokkuñu bii moo gën a clair bii moo gën a foos waaw bii nag ndaa li nga koy wute mooy waa duñ benn. ndaa li ñu koy wutee muy comme mbëri bu ñu demee e-, stade ndaa yi ni toj waaw comme bu demee stade bu ndee bàkku ndaa yooyu yu ni sànni defaa bu tojee yooyu lañ koy booleel nga xam ne boobaa moom ngay jël lay taaye ko sungu si mu amit wante gis nga moom mii nii ni la amee solo lool ci xeetu kaaraange ak lu mel ne xeetu rab ak seytaan ak ay jinne yooyu moom boo ko sangoo yii ma lay wax bu dee cat wala muy rab wala muy seytaan wala muy liggéey day denc saase te li ci gën a yéeme moom boo ko doon sangoo tey jii da ngay toog ci sendal gii sangoo nga xam ne ci sendal waa nga xam ne sendal gii ngay toog sangoo ko nga xam ne tey bu ko mës a indi sax waaw bëri na mbëri koy ay tafaatin tafaatin bi muy bëreeg Bombardier xama xama Boy Niang taxaw na ci sendal gi moom it lu am solo la sendal gii ni nga ko gisee ñaareel looy looy xëccoo lu nekk rek am saafaraam toog di ci sango doo ko mës a ñàkk mm-hmm. ñaareel tamit boo tey sango wàllum wërsëg toog ci mm-hmm. ñaareel say mbir day kawe rek mm-hmm. boo dee sangoo bay toog ci say mbir day kawe wante li ci ëpp solo muy dafa nekk xam-xam boo xam xam-xam yi mag ñi la mag ñi ñoo ko daan def moo tax sëriñ sëriñ buy ñaan bu nekk war ngaa am ak sendal bu dee xam-xam mi ngi ci yow ndax sendal dafa nekk lu am solo ni ko ràbbe te bant yi boo boo coog da nga yaakaar da ngay daan waan doo daanu doo damu doo daanu wante moo sangat gii lan lay defal nga sangu wante lépp loo xam ne moo ngi sa yaram bu soobee yàlla day denc saasa nga xam ne tey jii nii denc nga xam ne day deñ ba pare du la toppar muy boo ci dee sangu sa tànki du laal suuf da ngay jël sa tànki teg ko fii nga xam ne da ngay bàyyi nii muy wàcc rek def nii muy wàcc di def nii mu wàcc mooy wara ba yaram bi après day set oyof nga xam ne lépp loo xam ne moo ngi sa muy liggéey muy cat wala muy saytaan wala muy rab wala mu lu lay yàq rek buñ la ko joxe incha allah boo ko sangoo incha allah loolu lépp da lay ñu bu soobee yàlla incha allah Hmm. jërë jërë mbokk yi gis waaye ku ne xam ne ne tamit dañoo dugg ci ay bis bu ñu waxee bis dugg ci ay làmb yoo xam te ni làmb yu doy waar la duma la laaj ci Sa Thiès Eumeu seen waaye dama lay laaj ci Balla gay ak ki nga xam ne moom moo di Tapha ndax ñoom ñaan ñëpp ku ci nekk wuti di ñu la doole Balla Gaye nga France INSEPS Tapha Tine na nga Maroc xaw ma Cameroun xaw ma Nigéria kenn xamul fa mu nekk xaw ma Côte d'Ivoire mais dem na uti ci doole tamit ci combat boobu noonu coow yi bari trop diggante Tapha ak Balla Gaye mu nekk combat revanche Serigne Cissé loolu mën a wax ci loolu. waaw làmb jooju de daanaka comme ni ñu wax rek moom lañ ciy waxaat ndax. nekk na làmb yoo xam ne làmb ji neex daal lay nekk moom wante daal benn côté maa ngi koy conseil Tapha muy foofu bi ñu ko jox ci diggante ak Balla Gaye bu mu ko nangu cent pour cent ndax sénégalais yëpp taxaw ni Tapha Tine moo man la Gaye te loolu waxe sénégalais loolu baaxut Sénégal moom bu dëkk dëkkalee ni la yaa man kii nangam nangam ak nangam ñaareel man nga ci am surprise ndax yow mbër ma da ngay bëriwaale noonu staff mbër ma da koy bëriwaale ñi la jigéen tamit dañu bëri wàllal tafaati nag ci biiri waxam jël na fabrique boobu noonu jëf na ko ci xelam ndax dégg naa ko ci ay micro mu wax ne Balla Gaye daa yàqu mënta defar waat loolu moom daanaka bu mu ko jël di ko def ci mu xelam. ba tax ne li mu war a def cent pour cent mu koy def du ko def wala la mu war a matale dëgg du ko matale boobaa da koy indi leen jëf-jëf mooy war a mu ñëw ba ca biir làmb ja am benn surprise boo xam ne tamit da koy bett wala mu loo xam ne day yàq làmbam ëllëg. sànq say biir yi wax maa ngi dégg ngay wax naan combat bi xam naa kii daan xam naa na muy daanoo Serigne Cissé. waaw waaw dama wax naa la ko man la combat Tapha Tine Balla Gaye Tapha Tine xam nga làmb nag da dul toog. waaye pour le moment fii ma lay waxee nii nii nii xam naa ci koo xam ne tey jii nii buñ ko daan daan ci tànk lañ koy jàpp ci tànk lañ koy jaare wante làmb nag du taxaw moom waaw làmb moom du taxaw wante fii tey la di tey la dix-sept xama dix-huit wante làmb jaay ngi suñu kanam a génee neen kirim ñëwagul wante fi li may wax daal muy nanu jekko sax amagul jekkoo amagul ndax rawaan yi taxawagul ndax rawaan yi faw ma ba la ñuy taxaw mooy sarax mat sarax yi ñooy taxaw rawaan yi mooy sarax bi nga war a génne ndax donte yaa ngi ñaan lu nag wante defa ko say sarax cent pour cent sarax bi nga xam te jii mooy téye man a téye victoire ba mu leer naañ amul wante ci ci kaw seet seet man na laa woon lii ni la lii kat bu ngóor si defan sarax yi gaaw def sarax yi làmb ji fii lay terminé ne fii lay jeexe waaw loolu moom ak seet da koy wane xam bu ñu seet waaw waaw ku ma ci woo mm, ma ñaanay solo ma ci xaaram moodu rek mooy doy bëri keneen may kii wante bu dul loolu ku ma ci woo dama lay liggéeyal dama lay mm. ñaanal muy baalagee woo ma mm-hmm. dama lay liggéey tafaatin woo ma dama lay liggéey wante xam naa ci kan boo xam ni moom mm-hmm. wax dëgg yàlla bu góorgóorloo tuuti mm-hmm. mbir mi mën naa féete ci kawam tàkkusaan googu moom du ci daanu xaw ma leneen lay xewaan la du ci daanu ci ñoom ñaar am na ci koo xam ni moom daanaka mën naa laa wax ni la mi ngi ci yoon mi ngi ci aw yoon moo gën a jekk keneen ki buñ doon ñaan kooku moo gën a gaaw a neex a ñaanal ci kee ndax kee day kee day eh, day dindi kee nag di gën a sañaxal di gën a di gën a dugal kee nag di dindi léegi nag kii dindi ak kii gën a sañaxal ku gën a yomb waaw ah, léegi nag ko ñoom ñaar am na koo xam ne nag noonu la seeni mbir deme wante Tapha Tine bu mu nangu fabrique bu ko Sénégal yi jox mu ñëw bëgg a bëri waale ak moom mm. Balla Gaye nag gisuñu ko bay mën a wax ci moom wante nuru na ni bëgg na làmb ci mm. wante bu ko bëggul tamit daa dof rek da mm. ay millions yu bëri mënu ko yàq dem paas def ci saw yaram ñëw andi fi yenn forme yu bon wala nangam. Hmm. wala nangam loolu gàcce la. Hmm. loolu boo yàggee boo daanoo booy tamit dañ lay hmm. la foyee wala nangam nangam. ba tey fi yaakaar naa ne léegi ñu àgg ci cappaandaw gi muy mën a ci Sa Thiès Eumeu Sène. xam naa ci ni am naa xam naa sarax boo xam bu ko Sa Thiès defee. ak génn bagage bu ko Sa defee mën naa génn ci Eumeu Sène. wante Eumeu Sène xam naa sarax boobu bu ko defee day tourné Sa Thiès. Hmm? maa la wax loolu loolu rek laa ciy wax. gis ngeen ko la mu wax ak doy war dégg mu ne am na loo xam te nii mbokk yi yéen a koy seetaan. li muy Sa Thiès Eumeu kenn daa jékkoogul fii ma lay wax. Hmm. kenn jékkoogul. tey jii ci la 18 bii le 18 avril bi kenn jékkoogu ci. Hmm. xaw ma nag ba ca kanam. ànd moment bi kenn ku la sëb sëriñ wax ne yaa moom laa ma ji dalay nax. te ñoom ñaar dina am ko ci jekku ci danielle bi si ñetti fane bi si mujj laam ji réeraat ko muy topp di wër ci wër ba muy wër nag ki lay amee jafe-jafe ba yàlla def ko